ki yàlla teg ci bopp yoonu murit di alxaaji Cheikh Sidi El Muxtaar xalif général kullu murit di ñaan yàlla mu gën ko fee yàggal lool te dolli ak wéram di nuyu ak ziar sëriñ Mor Fati Mbakke mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu maam Cheikh Anta di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te dolli wéram siyaare sëriñ Jili Abdou Khadir xalifa sëriñ Modou Mamoun ak sëriñ Abo Rakam ak mbooleem njabootu sëriñ Modou Mamoun gépp di siyaare mbooleem njabootu maam Cheikh gépp di beral siyaar itam sëriñ Cheikh Jëmbu Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall ak mbooleem njabootu maam di nuyu nag ñi nga xam ne ñoom lañ ñu seqal jataay bi di sëriñ Mamour Ndaw Baye Fall ak sëriñ Alioune Badara Ndiim ci seen émission bi nga xam ne moom lañu ñu tuddee Jazbul murit te lépp jëm ci xeñtu ak taalibe ak njàngale doxinu maam Cheikh Ibrahima Fall tey nag ngeen ñëw ci ëtt boo xamante ni bii ëtt la ci ëtt yi nga xam ne bi bi rek jóge ngir wut ngërëmul yàlla te jaare ko ci sunu yaakaar yi tey ak ëllëg di Ahmadul Xadim bi ko yàllay jox ngërëm loolu ëtt bi mu fekk maam Cheikh Ibrahima Fall nekk fa fa la ko Serigne tubaay joxe ngërëmul yàlla. wet bi nga xam ne lu ëpp ci liggéey maam Cheikh Rahima Fall ci daaray tarbiya fa la ko defee mu di daaru salaam ngeen ñëw fekk ñu fi nag ñu toog ak soldaaru Serigne tubaab bi nga xam ne wax naa ba tey ne jéego bu mu yëkkati liggéeyal Cheikh Khadim moo ko tax a jóg mu di maam Cheikh Anta ibnu Cheikh Mahamadou Roqaya ñu ñaan yàlla yàggal ko fi loolu doole ak wéram e, ñu fas yéene ànd moom nag ci diggante boobu ngeen wax ne moo di diggante maam Cheikh Ibrahima Fall. ak maam Cheikh ngeen bëgg a ngir mu bokk ci waajtaayu bis bi nga xam ne moom lañ dëgmal mu ne ci suñ kanam war a nekk talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru tubaab e, loolu nag bala ñu ciy guddal xam ngeen ne maam Cheikh ak maam Cheikh rahima Fall seen diggante li fi nekk moo di Touba ndax diggante mooy fii nit yam ak fee la dox seen diggante ñoom ñaar mooy li leen diggale ñoom ñaar ci baatu wolof mooy li leen diggale li leen diggale nag <clears throat> su doon ne ci misaal ñoom ñaar lu ñu seq liñ seq mooy pas-pas pas-pas bi ci kan jëm Serigne Touba ñoom ñaar dañoo bokk ak bëgg ñaareel biit it mm, bokk demee ci li maam Cheikh ba maam Serigne tubaa faral di nettali ne bokk yi Cheikh ma ci jëkk a jox boppam loolu dafa doon lu leer naññ maam Cheikh Rahim Fall it bokk ci ñi ko njëkk a jox boppam ci. ni ñu tuddee naan jàmbur yi waaye duñ jàmbur yi waaye mooy doomi buur yi wala kilifa yi nekkoon ci réew mi loolu nag ñu bokk ko muy benn pas-pas Sëriñ Tuubaa woote loo xam ne dëgg téere yi daan nañ ko junju waaye leeraluñ ko bu baax nit ñi daan ko jàng waaye déggaguñ ko am na ñu ko doon jéem a jëfe waaye mënaguñ ko wow yoon mooy yan mooy yoonu tarbiya te yoonu tarbiya ci la yonent bi sallallahu alayhi wa xam ne eh, sun borom subhanahu wa mooy ki nga xam ne moo ma yar ba noppi rafetal sama yar yoon woowu nag la maam Cheikh bokk ak maam Cheikh Ibrahima yàlla it boole leen ak xaritoo incha allahu loolu lañ fas yéene ànd ak sëriñ bi hmm, kon ñun ñëpp ñu maase àndandoo taatan kàddu yi nga xam ne mooy bàyyikoo ci sëriñ Cheikh Anta mu maam Cheikh Anta mu sëriñ Modou Rokhaya mu sëriñ Modou Mamoun mu maam Cheikh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 ndax Sëriñ Tuubaa làmp la boo xam ne euh, ku njëkk ak ku mujj mm-hmm. leeram ngi rek lañuy wër mm-hmm. ndax leer gi ne ci moom mooy leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne dafa jeex tàkk ci Sëriñ Tuubaa dafa jeex tàkk ci moom te ci kenn ku ne xam ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa jar tàkk ci sunu borom te it leeruk sunu borom la ba tax na ki njëkk a judd ci doomu aadama ñu sunu sunu moom aadama mi njëkk a wàcc ci suuf leeruk yonent bi rek la doon xañtu ñim fi meññ ginnaawam ñëpp itam ci ay yonent minal ambiyaa wa rusul lam yaqtafu illa athara sayidina muhammadin الذي سيكون سبطا لهم ولكن ما زال في في ما زال في استعداد رب تبارك وتعالى لخلقه ñoom ñooñu nga xam ne ñooy yonent yooyu kenn xeñtu xeñtuwu ci woon lu leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te booba sunu borom bindagu ko sax ci sayir ba ñu gis ko waaye ak leeram gis nañ ko suñ borom wax na leen ko wax wax wax ko sunu maam Adama ci jë ci teewaayu malaayika yi muy ndaje ma nga xam ne moo njëkk am diggante sunu boroom ak malaayika ak doomu Adama muy ba mu bindee sunu maam Adama te wax malaayika yi bind naa koo xam ne day. bu ma ko bindee bu agsee na ngeen ko su jootal yéen ñëpp mhm. te xam ne leer gi ma bind te ki ma gënal ci li ma bind nekk ci mi moom la nekk mhm. bu ñëwee na ngeen ko su jootal malayka yi laaj foofu suñ borom ne ko li nga bëgg a bind ah ndax bu ñëwee day doon koo xam ne nii lay mel wala naa lay mel suñ borom ne leen xam naa loo xam ne xamu leen ko mhm. kon bu ñëwee na ngeen jëfee sama ndigal ba sun maam Adama ñëwee su jóot leen ñu gàttu ñoom ñëpp ñu nangu ba mu des Iblis Iblis gàntu bañ a sujjóot bañ a sujjóotam googee ci la génne ci kuréelub sun borom sun borom dàkk ko ba tax mu tudd seytaane yàlla yàlla musal ci moom mm-hmm. malayka yooyee daldi su jootal sunu maam Adama mm-hmm. eh, sunu borom wax sunu maam Adama ne ko am na lu ñu xamut mm-hmm. xamal leen ko mm-hmm. wa allama Adama lahumul asmaa mu dal xamal sunu maam Adama mu xamal leen loo xam ne malaayka kii li ñu jege jege sunu borom xamuñu ko woon te sunu borom ñaari ñaari mbindeef rek la am. maanaam nit ak jinne ak malaayika boo ko dee dégg mooy malaayika ak jinne doonuñu loo xam ne lu am yaram lañu ay ruuxaani yoon lañu maanaam duñu ruux ci ruux rek lañu la mën a xamee mm-hmm. waaye duñ jëmm jooy gis mm-hmm. moo tax moo tax jinne tudd tudd jinne aj jinne mooy lan mooy booy dox ba fakkatal ko fakkatal boobu la fakkatal fakkatal sa tànk junnatun la tudd maanaam da nga ko gisut moo tax sa tànk dal ci moom la sunu borom di wax ne ci ba yonte yàlla génte mu ne falamma janna alayhi laylu raa kawkaban sayd mm-hmm. sayduna ibrahima mm-hmm. falamma janna ba nga xamee ne lëndëm gi dikk na eh, kon loo xam ne lii dafa lëndëm mënee su koo gis loolu luñ munta gis loolu mooy mooy tudd jinne aljannatu ca baat ba la bokk cosaanul baat ba moo tax ajjana eh, ñi ko war a gis rek koy gis waaye du ñëpp koy gis eh, aljanaan xolu doomu aadama aljanaanu mooy ab xol xol borom du ko gaaw a gis xanaa ci jamono ji waaye bu njëkk bu njëkk kuñ tegg sa xol teg fee moom dootoo ko nettali loolu doomu aadama rek lu ci suñ borom may muy koo xam ne kii day gisante ak ak ak boppam di di gisante ak lu mu war a gisanteel am aw yaram di di di sëgg ak di julli di ànd di doon mbooloo waaw mm-hmm. ah, te te ku ko gis doo jommi ba nga xamee ne ndaje moom am na nag suñu borom wax ak malaayika yi kon seytaane war nañoo am foofee eh, njiit jinne yi nga xam ne gëmuñu dañoo weddi suñu borom mm-hmm. war nañoo am foofee njiit mm-hmm. fa la njiit soqi muy iblis. ñi nga xam ne mooy jinne yi nga xam ne dañuy jëbalu ak ruuxaani yoon yi nga xam ne ñoom gëm nañ suñu borom mm-hmm. war nañoo am fa seen njiit mm-hmm. seen njiit muy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa mi nga xam ne mooy mooy doon sëtub maam adama moomee fekke woon jotaay ba jotaay ba leeruk sayyiduna muhammad la leen sun borom doon sujjootloo waaye jëmmi adama ji taxutoon ñuy sujjoot waaw boobu sun borom rek la ñuy sujjootal waaye leeruk yonante ba ca biir nag moom la sun borom doon sujjootloo kon moo tax sëriñ tuba wax ne sun borom maa ngi lay ñaan eh, ci yonent bi nga xam ne sallallahu alayhi wa ma jaamu la ci liggéeyal ko ci jëmmam ju tedd ja fii tuuba wa fii Daaru wa fii Daarul Minan wa fii Daarul ba mu ko ñaanee suñ borom dafa mel ni suñ boroom dafa dal di nangu ñaan nga ndax booba Serigne Touba jóge na Mbàkke Kajoor di wut fu dëkk bu mu ko ñaanee suñu borom suñu borom suñu borom daal di nangu ñaan nga. Hmm. daal di wax ne faraxani salaamu wal mannaanu. Hmm. tafriha baaqin indahul jinaanu. Hmm. yaquudu lil atyaba fii fii duyóor yi. rabbul waral quddus lu xuyóor tuy dëkk yi ma tudd day dafa mel ni suñu borom bégal na ma ne ma li ma ko doon jaan nangul na ma ko. moom mi nga te won na ma ne tam ne yaquudu lil atyaba. ñoddil na ma li gën a tedd ak li gën a sell muy ajana fii duyóor yi ci sama kër yi rabbul waral xuddoos sul xuyóor yi daa midaadi wa qilaamil yawma wa baadahu taalimu xattil qawma radatu baatilan bi xaqin fasaaq walil jamilu ka sa dahaq yujaddidu tawxida wal furuwa maa tasawufin xawa buruwa bi nga xamee ne sëriñ bi suñ borom may na ko mu sañ ci dëkk yooyu xam na ne boro lam ñaanoon boromam itam ne ko nag ma may may yeesalaat ngirum yonent bi sallallahu alayhi sama sang bi muy loolu nga wax léegi Sëriñ Tuubaa susul aw yoon susul loo xam ne lii eh, da ko sos ci biir diine waaye dafa fekk ngir mi yonent bi jaaroon ànd ceeg saxaaba yi mu ñëw ñaan suñu ne ko may ma ma yeesalaat ko loolu nag mooy sama xalima ak sama xalima ak samay wax na doon loo xam ne lii day day yéege jaam yi day xamal jaam ñi seen tey ak seen ëllëg day xamal jaam ñi ne sama jëm bët bi ma suñ borom mayee ma yeesal lool yi raddatu baatilan bi xaqin fa sahab delloo na neen ba neen naax saay na walil jamilu ka si saqihi daxaq may yi suñ borom mayee te muy baatin bu bare baree bari sunu borom feesal na ma ci sama dënn ba nga xam ne euh, ku ma gindi dootoo réer euh, ci loolu ci la waxee ne te ku ne xam ne euh, mbirum tasawuf mooy buum goo xam ne gi sun borom musu koo génne ci lislaam ci jamono yonent bi ak ñu baax ñi fi jaar ñëpp ndax ndaxte lislaam munta mat mukk te àndul ak iman iman nag bi jiitoo mooy gëm yàlla gëm nag dafa dafa rëy ndax boo yemee ci gëm yàlla rek day daal di wàll lépp loo war a gëm lépp la war a gëm danga koy gëm na nga koy gëmee nag mooy ni nga gëmee ne suñu borom kenn la amul ndey amul baay amul ndend amul kenn koo xam ne kum nirool la wala ku ko niru ci dara leneen looy gëm ngir yàlla tam noonu nga koy gëmee ngir yàlla kon euh, kenn ku ne xam na ne Sëriñ Touba bi mu laataan ñëw Daaru Salaam bay bay bay wax wax kàddu yi dañuy wax dañuy wax ne maam Cheikh Anta moo njëkk a jébbalu waaye boo seetloo ci biir day mel ni Sëriñ Touba way juróom ba ko doon jàngal moo ko njëkk gëm Maam Mor Anta moo ko njëkk a gëm te loolu baatin bu rëy rëy la baatin bu wér la te ku gëmul baatin nag. Mm-hmm. mën na su ta waxee yow ci sayel. déedéet. Mm-hmm. nga gëm baati baatin nag. Mm-hmm. mën na su ta waxee yow ci sayel. déedéet. nga gëm baati door a mën a gëm sayel. ndax doom joo xam ne yaa ko jur. yar ko. jàngal ko. muy màgg ci sa kanam. nga dem ba wéradi ba xam ne yow mii dootoo dellu. dootoo dootoo dëpp. jubal nga jubal nga. teqali ko sa ruux nga woo sa doom jooju di ko dénk sa bopp kenn xam kenn ku ne xam na ne koo ko njëkk a gëm. te lu mu ko ca dénk ci boppam. Sëriñ Tuubaa nangul ko ko ci lu wér. kooka day mel ni bu fekkee ne moo njëkk a gëm ka topp mooy maam Anta Ndiaye ma dégg waxtaan wa rek. dal di woo doomam. tekki gànjar gi mu takkoon gépp ak alal ju bari jox doomam ne ko demal ci sama mag ji Moodu Mbàkke anamu mu ne ko ma ci buntu kër ba mu ne ko boo demee lii nang ko jox te jébbalu ci moom jébbal ko sa bopp bis na bul ko defati mag bul ko defati doomi baay bul ko defati mbokk nang ko nang ko def ab sëriñ te nga wut yàlla ci moom ci moom la ci moom la gën a ndax jamono yi Mamour Diarra jamono yi Mamour Anta Sall euh, mag ñi jigéen ñi dañ daan wuti yàlla ni ko góor ñiy wute. dëgg la loolu moo waral nga gis ne euh, jigéen ñooñu ñëpp kenn ku ci nekk sa alal yi ñuy jox alalil sëy yi ñuy jox jigéen. Mm-hmm. yow sa alalil sëy kaamilu alxuraan lay doon. loolu lu nu selle mm-hmm. yonte bi li muy baax baax mm-hmm. jamonoom mm-hmm. bindub kaamil di ko takk soxna amu ci woon kon kii ñu kii ñu taggee uh, waxi alxuraan yi suñu borom ji wàcc yonent bi gën ci yonent yi eh, nga xam ne alali sëyam mooy alxuraan kooku mënut a ñàkk barke faaw mu barke kon maamanta Njaay ma dégg wax ja moom daal koy gëm ba jël alalam jépp jox maam Cheikh Anta ne ko jëbbal ko sa mag ji kon day mel ni waa Darou Salaam buñ joxe wut addiya nga euh, war a war a na leen yedd ndax ndax ndax ci lañ amee lu ñu am. dëgg la ndax lu am maam Cheikh tax ñu am ko. maam Cheikh lu ma am maam Anta Ndiaye ko may. Mm-hmm. ñoom ñëpp nag lu am Serigne Touba leen ko may. Mm-hmm. ak njëkk ci njëkk ci Serigne Touba rek. Mm-hmm. kon nag maam Cheikh Anta njëkkee ci sëriñ Touba ah, taqoog moom lool ñoom ñaar boobu seeni at bariwut mu taqoog moom xam ko lool ci sayir baatin ba yàlla xam ñuy dox di dox di dox ba daar daaru salaam gi ma wax ni tey Serigne Touba sanc ko ci ndigalul suñu borom ngir lii mu wax. Mm-hmm. ngir di fa tagg yonante bi. Mm-hmm. ak di fa jaamu suñu borom. Mm-hmm. ak di fa wut ngërëmul yàlla. moo ñi mu àndal. dëkk boobee maam Cheikh topp ko ba mu rafaatale ko ko. waaye ci biir nekk nga mënu fa nekk. Cheikh Ibra Fall eh, dikk na ci dikk na ci dikk na ci daara ji. waaye nag daara ji kenn ku ne xam na ne bi ko maam Mor Anta Sali yore daara yi xam-xam la ci ci Mbàkke daara yi xam-xam la ca ca Saloum ca ñë ca ca Poroxaan daara yi xam-xam la ca Mbàkke Kajoor bëgg ko bugg alxuraan walla nga bëgg xam-xam maam Mor Anta Sali kenn rawu ba demee ci moom li nga bëgg lépp danga ko bëgg ci xam ko am waaye léeg-léeg nag day am ñoo xam ne ku mel ni Cheikh bi muy ñëw ci daara ji day mel ni fekk na lañuy jàng ci daara ja moom jàng na ko ba noppi. dëgg la waaye am na leneen lu mu fa doon wut. Mhm. loolaa ko may. Mhm. ba mu agsee mhm. mel ni nag sëñ bi suñ borom namm na sax liggéey loo ko ci bindeef yi waaye daf ko gën a soññ nag ci ne ko nag rabbi ahlaka bil himma sa waa kër ñii yaa ngi leen doon yar tarbiya boo xam ne bii yaa ngi leen di jàngal yaa ngi leen di yar tarbiya bu rafet waaye da nga leen nañ nañ nañ ci boole nag itte da leen di yar ci itte mooy na leen dugal ci daaray tarbiya loolu mel ni kon na njëkk a gëmee ca ca ca ca ba muy nekk tu tànk kii bokk kii njëkk ubbi bunt bi mhm. moom bu njëkkute bulut mhm. moo njëkk ubbi bunt bi mhm. ni yonante bi sallallahu alayhi Wasallam, sallam rek eh, ndax yonante bi serigne touba mbiram dafa niroo ak mbirum yonante bi sallallahu alayhi Wasallam. sallam bi bi muy door a feeñ ñi njëkk a ànd ak moom ñëpp gëm nañ ko gëm nañ li wax gëm nañ ne yàlla ko yónni waaw bañ ko jàngalee rek iqra bi rabbika alladi xalaq ci lañ ko gëm wa anzir ashirataka al aqrabina waaral sa mbokk yi la gën a jege dikk bokk ya nag dëgër bopp ne kii noo ko jur noo ko mag nu mu fi mën a juddoo ba dikk dinu wax dina wax ci yàlla dara nga xam ne dafa mujj ñu ñu sonal ko lool ba muy nëbbutu ba bu ñuy nodd di jël taax yi di ko tax ci seen seeni seeni i gémmiñ ngir bañ ñu dégg nodd gi waaye ba Seydina Omar ñëwee ba jibal boppam Sey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa dafa jël jaaseem laaj tax yi lu muy lu muy jariñ ñu ne ko dañuy bañ noonu yi jibiti dégg suñ kàddu mu jël jaaseem xar xar xar xar tax yépp dal dal ne Bilaal noddal bilaal nodd boo gisee kuy nodd bu demee ba ci bay wax ashhadu an laa ilaha illallah ñu ñuy sopp ci moom mu yëkkati tistini tànkam mooy booba Seydina Omar a ngi taxaw di ko gëdd naa ko na gën a kowee muy mu yuqamte ko di gën di wax loolu foofu la soqi ko boobu ña nga ca daarul arxam ñam fa fekkoon ñëpp mu ne leen kii kat kenn du toog moom di tàllal sab tànk kii kat kenn toog di wax ca kaw. Mm-hmm. alxuraan ni cëpp ànd moom. ndax dëgg fu mu feeñee rek. Mm-hmm. te ñooñu suñ borom na leen dimbale. Mm-hmm. suñu borom day daal di wàcce alxuraan. ànd ak Sidna Omar. loolee nag moo amaat. bi sëriñ bi nekkee Mbàkke Kajoor bari na lool ñu ñu xam ne ñii eh, àndoon nañoo ak moom. di wut ci moom yàlla waaye ñii ci tur yàlla lañ ko doon wut ñii ci neneen ñii ci neneen waaye bi Seex Ibra ñëwee nag la ñëw nag jébbale boppam ci lu àndut ak benn sart àndut benn sart li nga yor laa bëgg nga jox ma ci rek ndax xam na ni kii li mu yor kum ci jox dootoo jeexal àdduna dootoo jeexal àllaaxira koo gindi sax yow doo doo dootu gëlëm àdduna ak àllaaxira te teqale ko ngëlëmteel àdduna ak àllaaxira rek moom la ñuy wut ci àdduna ndax ngëlëmte rek moo daloon suñu maam Adama ba tax ñu wàccee ko ci suuf kon nag lu nu delloo ci sunu kër googu suñu maam dëkkoon di àjjana loolu rek lan fi wut àdduna wutuñ fi dara lu dul loolu loolu yi nag Sëriñ Tuubaa am ci bunt boo xam ne bii kenn mësu ko ci am ndax sallallahu alayhi wa sallam tagg ne tagg nañ ko wax ju ne wax nañ ko xeex bu ne xeexal nañ ko waaye nag ñi ko daan xeexal dañuy yor jaas yi fii léeg-léeg ñu jam ñu da rey ci kenn mba ñoom it ñuy rey léeg-léeg ñu ñu ñu jam Seydina Muhammad ci seen wet te duñ ci mën dara léeg-léeg ñu dem ci xare. Mm-hmm. gañe léeg-léeg ñu dem ci xare duñ gañe. Mm-hmm. loolu lépp boobu nag mm-hmm. ndax moom plan guerre bu mu mës buñ ko toppee danañ am looñu lañ bëgg. seytaane léeg-léegaan mu dugg ci seen biir léeg-léegaan mu dugg ci seen biir di wax. bu ñu ne ci ginnaaw xare bi ñu ne ci ginnaaw xare bi ñu ñu di leen wax wax loo xam loo xam ne ne leen ñee kat euh, jekku nañ yëfar ya ba ña ngay séddoo seen àll bu ko defee ñi démarqué fiñ fiñ taxawoon euh, yëfar yi am bunt nger bu yonte bi mos a am kii rek loolu moo ko andi kon nag euh, cheikh ibrahima fall nuy waajal màggalug daaru salaam muy dëkk boo xam ne bii moog maam Cheikh Anta seq nañ fa lu bari ndax kii bëgg Sëriñ Tuubaa ak ay atam yu néew fa at yee tollu nag xel ma weesu na ko moo moog magam sëriñ bi mu am waaw booba waaw at booba bi na ko mm-hmm. xam weesu na ko baatin weesu na mm-hmm. moo tax bi sëriñ bi ñëwee Daaru Salaam mm-hmm. eh, maam Cheikh mm-hmm. topp ko toppin wu rafet gam ko toppoon mm-hmm. tax mu sargale mu mu mu jox ko dëkk ba ngir ngir sante ko ak taalibe yam fa fekkoon wax nañu ne juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent lañ ak moom ñuy téeméer mu boole leen ak dëkk ba jox ko maam Cheikh Anta dëkk Daaru Salaam nag doo dégg rek ne Sëñ tubaa jox na ko maam Cheikh Anta xanaa da dégg bayit yi ma njëkk a wax léegi ak yeneen bayit yi deme ni moom yoo xam ne Sëriñ Tuubaa dafa def ci Daaru Salaam ci suuf si eh, baatin bu baree bari li muy liggéey lépp foofee la ko fàggoo mu ne dama ne bu yëf yi doon cere ma ne foofee la ko soqe foofu la ko bojje soq ko wol ko ba def ko cere door a génn door a wutim ñeex door a wutim ñeex kon ba joxee maam si dëkk ba da ko booleeg leneen barke ba ci dëkk ba moo tax maam Cheikh Ibrahima Fall fi aw turam àgg fi mu ne فأشهد أن لا إله إلا الله أك دانا كترو ما مشي كرفا أجنف فتور سرين تبا أك ترو ما مشي كرفا أجنف لول لب كباس باس بارك الله دقلا باس باس مو أم سلو لول باس باس بدقر موي أوفيت باس باس بدقر موي ألال باس باس بوير بدقر موي مج باس باس بدقر موي جميع الله Mm-hmm. moo tax sunu borom jaamu yàlla yi mu def yëpp teg ko ci loxal Muhammad Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey wax nañ ci jiital yéene nañu nañu na na nga jiit nañ jiital yéene muy far farata njëkk ji yéene nag mooy téye xol bi mm-hmm. fas ne maa ngi fas yéene jàpp mm-hmm. ngir yàlla fas yéene jàpp njàpp mu sama njàpp mi mu fas ci yéene julli jullik tisbaar ak jullik takkusaan wala sax ak jullik timis bu dee koor nga ne bis bii fas naa yéene woor ko du ni ko suñ borom diglee du ci lekk du ma naan duma def lu ñuy tere lépp pas-pas ci jiitu lu pas-pas lal nag loo ci sotti mu dëgër mm-hmm. maam nag dafa fees dell bi muy ñëw ci Sëriñ Tuubaa mm-hmm. ak pas-pas moo tax Sëriñ Tuubaa liggéeyloo ko li mu ko liggéeyloo mm-hmm. Daaru Salaam mm-hmm. feneen fu liggéey liggéey na fa waaye ci Daaru Salaam la doon liggéeye dégg na maam Cheikh Ibra dana wax ne léeg-léeg am ma daan liggéey ci àll bi nga xam ne su ma doxee ba sama sama ngajjule rek lay dégg wala sabu sabu sabu bukki yeeg gaynde yi waaye li muy lëndëm lëndëm léeg-léeg ma gor dox ba ci ba ci ba ci diggante garab yu dëll maanaam fii di gaynde war na fee ne wala dara ma fekk fa bool bu ñu fa teg ndab lu ñu fa teg lu def ñam akum ndox mu sedd guy ma mën seexan daa ko fi teg allahu akbar xam nga ñooñu seen diggante fa ñu ànd dafa sori dëgg la dëgg la rawatina nag ànd bëggante di ginnaaw maam Cheikh Ibra daana wax ne maa maag Cheikh Anta ni nu mel ci Serigne Touba bay malewuñ ko dara yar bi danoo dal ba muy tooy mooy ba nga xamee ne sëñ bi yorut barke bu muy séddale yorut di seexal seexal mbooloo yorut alal ju muy joxe ba yar bi tooy booba la dal moo tax li nu ci fekk fekk nu ci tey jii maam Cheikh Ibrahima li muy dogal li muy jox ndog ci diggante tubaa ak réew mi mépp mhm. bu ñu yenoo bool yi ba romb la mhm. ñu ne la kii ka àndoon suñ tubaa teñ ne dafa dafa wéru mhm. lii ak njabootam la da nga xam ne kookee lam doon wut foofa la foofa la dëgg kon ci Daaru Salaam googu nga xam ne bi Sëriñ Touba liggéeyalee yonante bi Sëriñ Touba lu mu mës a am liggéeyal yonante bi moo ko gënal lu mos am ngërëmul yàlla moo ko gënal mm-hmm. waaye ngërëm li na jaar naa ko jaarale ci yonante bi mm-hmm. ci biir xasaytam yëpp mm-hmm. yi mu bind ci biir réew mi ak yi mu bind ci géej gi ak yi mu bind gabon ci géej gi fenn fu ci ne bu waxee suñu borom faw bala koo tëj dana ko tëj dana tëj xasaayit ga lu mat fukki yoon xasaayit goo ci gis day mel ni dafa dem ba jeexal tëje tëje ko yonante bi waaye xër gum xër ci yonent bi nga xam ne du ci doyal dëgg la muy tax mu dellu siwaat dugaat ci dugaat ci biir xasaayit gi ba indiwaat ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. yi nga xam ne mhm. ay julli ci bi sallallahu rek la sallallahu alayhi mhm. liggéey booba nag la muy rëy rëy bi mu ñibbisee daaru la ko yenni ko te ci géej gi la ko la ko la ko ñaane woon boromam mm-hmm. ñaan boromam ne ko boromam ne ko sunu borom maa ngi lay ñaan sama liggéey bu metti bii mm-hmm. bu ma ñibbee mm-hmm. na nekk texe sama sama njaboot ga sama njaboot ga ba nekk sama njaboot ga ma bàyyi ci réew ma bu ma ñibbee nekk seenu texe ñoom ñëpp ah, te it sama ñibbi daal di dellu daaru salaam it de ak tuba defal ma ko muy lu gaaw a gaaw a gaaw ba mu ñibbisee mu yenni li leen ko liggéey boobee fa Daaru Salaam kon mel na ni la fa su la fa Sëriñ def ñor na ko lool. lafa la mag ñi waxoon itam. ñuy wax ne Cheikh Omar doon na wër tuuba ak wàll yu nekk. loolu yëpp. ni ni ko sëñ bi def. day gën a firndeel rek ne. loolu am na fa. dëgg nga fa woon. Mm-hmm. kon foofee Cheikh Ibra fa la liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba woo ko gërëm ko foofee la amee ngërëmul Serigne Touba fa la ko Serigne Touba wàccee te Cheikh Ibra sax du wàcc moom musta wàcc waaye nag li ñuy wax wàcce tarbiya wu ba wàcc foofu la ko sëñ bi da njëkk njëkk a defale waaw kon nag ñoom seenub ànd suñ borom da boole seen àdduna boole leen seen àjjana seenu njaboot mm-hmm. eh, suñ borom boole leen mm-hmm. jaarale ko ci Serigne Touba mm-hmm. Serigne Modou maam Cheikh ko Cheikh Ibrahima joxoon sa eh, taaw nag koo ko yëkkati jox ko doyloo nga ko dëgg la dëgg la ko eh, jox jox ko mooy da mooy na ma gën rek wallaahi waaw. te it mel na ni Cheikh Cheikh moo Cheikh Moudou Moussa Fall. Mhm. bi mu fi jógee ba dellu ci Cheikh Ibra. Mhm. am na ay kàddu yu Cheikh Ibra wax. dëgg la <laughs> yoo xam ne mag ñi mën nañ koo wax. dëgg la waaw. Mhm. kon nag diggante maam Cheikh Anta ak Cheikh Ibrahima Fall mooy liñ leen ñeelaal. te bëgg ci taasu ci seen barke. mooy xam nga ñu xam Sëñ Tuubaa jafe na. waaw bëriwul ñu ñu ñu ko xamee noonu. la am ci Sëriñ Tuubaa jafe na mm-hmm. bariwut ñu ko mën a am mm-hmm. kon nag loolu la ñu amoon ci Sëriñ Tuubaa mm-hmm. noo ngi taasu ci seen barke te fas yéene di ñaan itam eh, képp ku di ab taalibe bu murit suñu borom boole la ca barke boobee boole la ci seen liggéey boobe képp ku di jullit suñu borom boole la ci seen liggéey boobee ba jéggal la say bàkkaar te dugal la àjjana te ñëpp nag ma di leen woo ci màggalu Daaru Salaam gii ci ndigalul Serigne tubaa Cheikh Seydil Mokhtar mi nga xam ne moo ci gisu moo koy ubbi moo koy tëj leen ci woo ci turu sëñ Mor Fati xalifa maam Cheikh Anta leen ci woo ci turu sëriñ Abdoul Khadir xalifa Serigne Modou Maam di leen ci woo ci turu sëriñ Abo Mbacke di rek Serigne Abdoul Serigne Abdoul Khadir Anta yi rek sëñ Mor Fati ak njabootuk maam Cheikh Anta gépp euh, li ko dalee ci sëñ Moodu sëñ Moodu Maam njabootuk Alaaji Sëriñ Tàkko njabootuk sëñ Ibra njabootuk si sëñ Daam Mbàkke njabootuk euh, sëñ Ibra Astu Caam njabootuk sëriñ Saam sëñ Cheikh Coro njabootuk sëñ Abdu Góora ak njaboot gu jigéen gi nga xam ne njabootuk sëñ Moustapha Ceytu mi nga xam ne moo mu nekk xalifaam mm-hmm. eh, ak ci gu jigéen gi mm-hmm. di ñaanal sunu maam ji fi des mm-hmm. soxna Daba Mbacké sunu borom bàyyi ko fi te dolli ko wér mu yàgg fi lool. barakallahu mbokk yi yaakaar naa ne eh, mënees naa jàngalu bare bare bare bare ci jiir wax ji nga xam ne eh, sëriñ bi mi ngi ko doon wax yaakaar naa ne. sëñ Mamour yaak sëriñ Aline Badra ci biir wax ji rek image bi dana wane pas-pas bi feeñ ci biir wax ji nga yëg ne fi mag ñi nekkoon moom foofa lay xool foofa lay xool xam nga euh, su fekkee ne yàlla daa dogal na nga daj nga nga nga ci nga lamb fu bari yër lu bari déglu lu bari lu lay ak lay gu mag te sëñ bi day mel ne ki mën a jommal dëgg mooy ki def loolu ki làmbatu fu bari yër fu bari déglu lu bari hmm. dana xam ne ñim doon dégg ak lim doon daj ak ñi mu gis wuute nañu lii mu gis te loolu daj dal na sëriñ bi ci biir wax ji dal na sëriñ bi itam ci ak gëstoo xam-xam ndax damay faral di wax rek ne sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde faat Fatma daanañ wax ne bu ñu nee xam-xam xaw ma bokk ci mu ne ci xawma la war a tàmbalee ndax da gis ba gis loo xamut te boo ko xamut boo amee xam-xam dëgg da nga naan lii xaw ma ko waaye sëriñ bi ci ay gëstoom nitug diine léegi rek maa ngi koy dégg ku koy nettali ne sëriñ Saliou sëriñ Fallou mu sëriñ Sohaybu moo koy wax mu ne sëriñ saaliwu bi ko sëriñ Sohaybu buy jox sëriñ Saliou sëriñ saaliwu dafa ñëw ci kër gi nee na sëriñ Sohaybu da ko waxoon ne ko booy ñëw ci kër gi kët na nga corné oto bi ñetti corné ñu xam ne yow bu dee ku mel ne soxna moom yi moom sëñ tubaa day corne ñeenti corne doomi sëñ tubaa ju ne am na ñaari nangami corne yow daa corne su ko defee sëñ son yi boo xam ne yow ne nañ ko ubbil nee na bi mu ñëwee romb leen ñuy jàngale xam-xam mu toog ab diir génnaat dem ci génnaat ab diir sëñ saaliwu dellusiwaat nee na mu dikkiwaatee nee na ñu woo ma ma ñëw sëñ son yi bu ne ma sa góor googu kat nee na daf laa daf laa soxla dalaa laa bëgg a yóbbu dama ko wax nag ma ne ko nag njaboot gi ñëpp dama leen a jébbaloon sëñ Abdou kon da ngay dem waxe ko sëñ Abdou neena na tax mu gennat bimu dem wax ko sëñ Abdou neena nee na Abdou da ko ne tay la ba waaye bu ko fa bàyyi neena bimu dikke mu dikkee bu mo genn xaliss jox ko ne ko jébbulul daal na ko na dama la bëgg a bir nak te fa nga jëm da ko gis nga bi fofu mu nekk bu ñu bari ñoon la da woyé séeréer bi bu ko de wax Senghor la ci jublu bo moy president mu ne ko gis nga bi fofu mu nekk mu na ah, mu ne ko moom mi mokko ko yor ci walu xam-xam dal ko na bo xamee nak do yam rek ci xam sa diine do nga bàyyi ci nek seigne saliwu ci walu mbay gàncax yépp da leen a xam xam seen cosaan xam suuf yañ ak yan gantu dal ko na suufit da ko xam xam xam min manam carrière fu mu am ak fu soso soso wex am ak so xonx ci aduna bepp nak lay doon du yam ci bir réew mi dal daal Fall dal ci def na buma ma tukki buma ñewé né daf may netali digënté Atlanta ak ya ca nek région yi région bu nekk la fa gën a nangu ak ña ña ko njëkkoon a moom ak ba jamono ji ñu toll daa wax ne xam-xamu sëñ Saaliw foofu la gaan toll kon nit dëgg buy xam du xam rek diineem kepp yam ci diine boo koy xam da xam histoire diine bépp la ko tàmbalee ca kaw ba ci suuf xam réew mi nga dëkk xam ceddo yi xam sëriñ si xam buur yi xam aada yi xam cosaan yi loolu boo jàngatee wax ji nga xam ne sëriñ bi doon na ko wax xam ne eh, bi mu ñëwee ci baatu jinne rek xam nga ñett yi la yàlla bind jinne ak nit doomu adama ak malaayika waaye bi leen yàlla bindee nag jékki-jékkiwu rek bindaalew leen niñ melokaan wiñ mel malaayika dafa am ruux jinne dafa am ruux doomu aadama dafa am ruux waaye am na jamono joo xam ne addu jam xaalamul arwaax la sax borom xam yi wax jamono joo xam ne la amoon mooy ruux waaye yàpp yaram amagut te yàpp yaram lu yàlla abal kii rek la ndax bu delluwaatee ci suuf maase kon ruux moo jëkk faw nag nga xam ruux xam ruux soogam mën a eh, xam yu bëree bari fi sëriñ bi doon waxe yaakaar naa ne boroom xam-xam yi dëgg seenu gës nañ waaye loolu mooy xam boo ko dee def da ngay xam ba xamaale yi la wër mooy tax nga mën a mucc ci yi nga xam ne ñooy ñooy ndoge loolu moo tax mu ënd ñu Cheikh Ibra xam <laughs> ne foofu tuuti am na si leeral waaw. waaw foofu nga toll jotaay bi da ko laajul rek waaye am na as leeral tuuti soo xam ne. mat naa mat naa junj ba ñu bare bari xamee ko noonu maanaam malaayika li ñuy bari bari eh, bul defe ne menn malaayika ci menn malaayika ci am am na ci tur woo xam ne tur tur tur wuñ la tudde la da nga dégg jibril dégg mikaayil waaye jabrail il mooy yàlla. Mhm. kenn ku ci nekk la mission ba la suñu borom di yónni. Mhm. Jibril su borom da ko daan yónni. Mhm. muy dem ci yonent yi. di defar. di wax luy defar nit ñi. dëgg moo tax jabr nag. jabr nag ci arab. mooy loxo bu demee. bant yi ngay takk. mu wër damm-damm bi. ngir ngir yàq bi mën a loolu mooy jabr. kon jabra il. <laughs> kattan la gu jógee ci suñu borom goo xam ne day jàng. Mm-hmm. day defari fee. dëgg la makk ya il. moom itam kattan la ci suñ borom goo xam ne. Mm-hmm. loolu muy def yi. Mm-hmm. loolu mooy liggéeyam. waaw Azraïl. quwwatun. quwwatun minallahi. quwwatullahi la. maanaam Azraïl itam quwwatullahi la boo xam ne. la suñ borom di def ci ci cosaanul baatu asr moom moom la moom moom lay doon ba noppi sant nag il il mooy yàlla mooy yàlla rek mooy doole yàlla rek mm-hmm. yàlla mm-hmm. dooleem ji nga xam ne ci nangam la ko jëmee mm-hmm. loolu la malaayka muy tudd waaye du caagi nu Mikaayil day aw tur woo xam ne <laughs> waaw barakalla malaayka yëpp noonu lañ demee barakalla mission bi yaakaar naa ne foofu loolu leeral googu du mën a ñàkk ndax fi ne sax boo desuwaatee ci ci cosaan rek eh, da ngay desuwaat dégg ñu naan bu fekkente ne yàlla dogal nag Galas Ndiaye mii di ministre de finance duñu wax Galas dañ naan ministre de finance mooy ministre bi yor wàllu joxe xaalis mi eh, ministre hydraulique ki yor ci wàllu ndox mi nag nangam ak nangam yooyu yi ci aju kon yaakaar naa ne xam dafa nga war a xam yu baree baree bari loolu dafay laaj ci xam mooy tax li nga bëgg a nga mën koo expliquer hmm. loolu nag moom la indee ci maam Cheikh ma Fall ak sëriñ Touba tax mu delluwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. ak saxaaba ya mu àndaloon hmm. bokk na ci tawfeex rek loo xam ne tawfeex lay doon Cheikh rek bi muy ñëw ci sëñ Touba te war a te war a leeral mission bi nga xam ne moom la sëñ bi wax ne bu njëkkutu jébbalu it moo njëkk a ubbi bunt bi bi sëñ tubaa suñ borom di kee ne rabbi asxaabaka bil himma loolu ab day mel ne nit ñëpp faw ñu ne tekk dégluwaat sëñ bamba ba xam lan mooy as rabbi bil himma loolu faw ñu dégluwaat ñoom ñoom ñoom ñoom ñaa àndoon sëñ tubaa day mel ne Cheikh Ibra mooy ñëw na leen lii mooy himma lii mooy himma loolu moo may Cheikh Ibra bi bi muy ñëw ci sëñ tubaa fekkut Maam Mor Anta Sali na ci kaw suuf di dund Cheikh Ibra daana wër sëñ tubaa te gisu ko bi muy ñëw Tayba Daxaar jaar ci sëñ Bamba faa xuja di fa wut ngërëmul yàlla booba Mamour Anta Sali ngi ci kaw suuf waaye sëti sëti sëñ Touba yooyu nekk ànd ànd ak Bamba faa xuja nga xam ne ku mel ne soxna Maymuna ku mel ne euh, so sëñ Abdou Samat ak ñooñu sëti Bamba faa xuja lañ ca feeñagun jamono seen leer gi nekkoon ci Bamba faa xuja moo doon xeeñ sëñ Touba mu di fa wut sëñ Touba waaye nee na dana ko yëg ne bu demee ba ci biir dana xam ne kii du sëñ bi muy seet waaye daal li jaaxal mooy xetuk sëñ bi mi ngi koy xeeñ ci moom loolu moo tax waaye li tax si yàlla gàllankoor mu jaar foofu mooy Seex Ibra booba bu ñëwoon ci jamonoy Mamor Anta Sali gisanteeg sëñ Touba dan sëñ Touba day mel ne kon Mamor Anta Sali duut nangu mu nekk kilifaam Seex Ibra nangu wut gis kenn ko doon kilifa ak sëñ Touba di toogandoog moom ci kaw ci ni sëñ Touba waxee ne bi saxaaba yi di àddu bu dee dëgg alxuraan day dëpp ne cëpp fasaasa daal di ànd ak saxaaba yi na leen loolu dëgg la xam nga Seydina Omar bi mu ñëwee jébbul rek. daal na leen nag ah yonent bii kat du yonent boo xamante ne bii da ngeen di toogandoog moom su dee wax ngeen di werante ku yay wax xam ne yaa wax dëgg déedéet la tarfahu aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajarulahu bil xawli ka jahri ba'dikum na ko alquran andee kon alquran day daal di ñëw alxaqu max umarin ji da ngay xàll dellusiwaat na ko sa yablaat waxe woon Cheikh Ibrahima bi muy ñëw loolu la ko yàlla defal dafa fekk Mamor Anta Sali génn àdduna nga xam ne bu dikkee ne sëñ Touba kenn du toogandoog moom te bu sëñ Mamor Anta Sali nekkoon ci kaw suuf sëñ Touba seen ko ci kaw lal day toog ci suuf waaye yàlla may na taw feex ju toll ne Cheikh Ibra sëñ Touba bi muy jébbalu ci moom su ko nee kii daal wëratut am genn kilifa guddul yonante bi sëñ loolu yàlla dana ci farak Cheikh Ibra moo tax bi mu ñëwee fekku fi loolu moo njëkk a ubbi bunt bi ci ne sëñ Touba mii du ku ñuy toogandool ci kaw suuf du ku ñuy toog ci wetam di tàllal ab tànk du koo xam ne bu waxee danga nga teg baat du ñu bokk ak moom añ kenn du ko jox loxob kese te bàyyi woo ci dara nangam ak nangam jàngale himma ji nga xam ne moom la sëñ Touba wax ne moom la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ko sa borom nee na nga yar sahaaba yi ci himma léegi kon dañ leen war a jàngal lan mooy himma biñ leen ko a jàngal rek la yàlla dogal Cheikh rafal ak si ci kanam Sëñ Tuubaa loolu bi mu leen ci agsee nag mu gis ne moom kat lii muy jàngale te nanguwut bokk yi defandoo koog Sëñ tuba fekk na seexanta ta seexanta tàggatu ci fekk na seexanta tàggatu ci ba mel ne bi bi bi ndigal lii ñëw daa fekk seexanta mokkal loolu musta bokk ak Sëñ Tuubaa ci ablal mës ta bokk sëñ maam sëñ Tuubaa ci ab der nanguwut a bokk ak moom lekk da dañoo wax ne da koo bëggoon ba sax jàng nanguwu koo ne defi ci genn daara lu dut ne sëñ Tuubaa dafay ne bu sëñ Tuubaa di jógit bu waree fas wi maam Seex da daa topp ci ginnaawam di ko santu loolu kon li Cheikh Ibra bëgg a jàngale dafa ñëw fekk Cheikh maam Cheikh mokkal ko di ko jëf Cheikh Ibra nag daal ko tey it sëñ Touba bëggal boppam maam Cheikh Anta te te Cheikh Ibra lu sëñ tubaa bëgg moo di bëggam. lépp lu sëñ Touba bëgg rek mooy bëgguk Cheikh Ibra bi mu ñëwee nag gis na sëñ Touba bëggal na boppam maam Cheikh Anta goo xam ne bu sëñ Touba nekkee ci xaal bu sëñ maam Cheikh Anta nekkee ñëwee mu nekk ci jàmm. bu fekk lu mu tàng tàng bu ñëwee rek mu daal di daa daañu def sax bu sëñ bi nekkee ci xaal ñu ne nañ wooyi seex diir bu gàtt ñoom ñaar ñu dégg leen ñuy wax ca kaw di ree loolu Cheikh Ibra nag ginaaw bëgg sëñ Tuubaa rek lay wuti mu bëggaale ci maam Cheikh Anta ñaareel bi it li muy wut mooy xol bu bokkaale wut sëñ tubaa ak dara xol bu bokkaale wut sëñ Tuubaa ak dara loolu bi mu koy tàggat ci nit ñi fekk ko ci xolub maam Cheikh ndax Cheikh Ibra julli moo gën a màgg ci li doomu aadama yi def li da ko da ko weccee woon liggéeyal sëñ tubaa jàng alxuraan aj màkka def ca aju yëpp loolu danaa ci nettali mooy bi ñu ne maam Cheikh Anta jàng def leen ne alxuraan ak lu nekk ci biiram rek sëñ Tuubaa ma ko gënal kon loolu Cheikh Ibrahima di jàngale si fekk na maam Cheikh di ko tari bi mu demee Makkatal Mukarrama dafa wax sëñ Fallu ci barabu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bu mu defee farataam yëpp ba noppi na ko kaay doon seere sama kana sama digganteeg sa baay ñi ngi ci kanam ki gën ki gënal yàlla ci mbindaafoon yi ñi ngi ci kanam ki nga xam ne sëñ Tuubaa moom la mas di liggéeyal waaye damaa bëgg wax mu dégg ko ndax mi ngi koy dégg nga doon seere yow mii suñu delu waté ba ëlëk ñu gis sa bay nang ko wax ne ko cheikh néna wut ci wut ci màkka lenn lo xamné da ko manké la ci yow ba tax mu ñëw ci barabu yonte bi gisut ci màkka it lum xémem lu nekkut fi yow àggale sa yene donc fi tax ñëw lolu kon lolu fekkat na mam cheikh mam cheikh ibra fofu la jeex ci seigne touba fekk na mam cheikh anta nekk fofu kon ñoñu yalla leen jëk boole ba nopi ñaaral bi nak ñu bëggante bëggante xol go xamne bi mam cheikh ibra di wut ngërëmul yàlla te bàyyi ay bokkam mel na la ci kër gi nit ñi diko daw bokki sëñ tubaa yi am ci ñoo xamante ni nangootuñ mu jege ko maam Cheikh moom it ginnaaw sëñ tubaa rek la bëgg ku bëgg sëñ tubaa mu bëgg la mu daal di fab fab maam Cheikh Rafal nag def ko muy doomi ndeyam bi muy wut ngërëmal yàlla te bëgg lekk du tax mu dëpp bëgg naan du tax mu dëpp bëgg a sol mbubb du tax mu dëpp daa wut so wax nañ ne yére yi njaxas yi bay Faal yi yor ci foofu la bàyyi ko maam Cheikh Anta da daan dem wuti ay yére dajale ko ba mu àgg mu di ko defal ci gaalam mu di ko masaa di liggéey day wax ne nañ wut luñ aw ñam Ibra Fall de liggéeyal sëñ Tuubaa mm, dana ko def ba dee ci àll bi ndax du wuti lum lekk du wuti lum naan buñ ko nee Ibra Fall de neexut a gis ci àll bi boo gisee yaar maam Cheikh Ibra nuróole koog sëñ Modou sëñ Gaawaan bu maam Cheikh Ibra Fall nekkee masaa nekk ci àll bi nga xam ne guddi ba guddi lay ñëw ci kër gi wàcc aw sayam te kenn du ko gis mu dellu maam Cheikh Ibra Fall si turu yàlla wi. ci lañ daan xamee ne mi ngi ci àll bi lu àll bi lëndëm lëndëm lu gaynde yi bari bari lu bukki yi bari bari baatub la ilaha illallah bi nga koy dégg maam Cheikh Anta bu masaa di wër Cheikh rek ci àll bi du wër naan Ibra Faalo day tudd yàlla moom it laa ilaha illallah laa ilaha illallah bu ko Cheikh rek déggee xam ne maam Cheikh koy wër moo tax bi yàlla dogalee mu sanc Daaru Salaam maam euh, sëñ Mudu sëñ sëñ Tubaa rafaatale ko turu yàlla wi fi maam Cheikh Ibra daan tudd ngoon sëñ gaawaan na nit ñi bala ñoo julleeti wenn waxtu nañuy sikkar ba waxtu jot moo tax Moussa Ka daan wax naan buñ masa di noddu gaa ya daal di kàbbar ba suñ masa di noddu gaa ya daal buñ masa di noddu gaa daal di sikkar ba sii di anta génn ñu door a kabar buñ masaa di noddu gaa ya daal di sikkar ba sii di génn ñu door a kàbbar kon baatub laa ilaha illallah boobu ñoom ñaar ñoo ko ci bokkoon hmm. beneen bi ci toppit ñam woowu mu ko daan bàyyil ci àll bi xam na ne Cheikh rek xiif du ko tax a dëpp maam Cheikh di wut aw ñam bo bu Cheikh a masa agsi daan ah lii da seex mu baax mais ah xam na ne man xiif du tax ma dëpp liggéey li sëñ Bamba nee na bu bu mosee ci ñam wa naan jàllaat ci àll bi nee na fi muy amee ngërëmul yàlla nag dafa am benn bis boo xam ne nee na Cheikh Ibra daa ñëw taxan aw say say wu mag mu dikk yëkkati ko lépp di matum matum jalambaan bi mu ko yëkkatee ba sëpp ko nii ndax bu masaa di taxan du leem du leem ci suuf moom Cheikh Ibra du masaa di leem ci suuf day wàqi ay pax nii bu ñëwee samp bant bi suul kook suuf bu ñëwee samp bant bi suul kook suuf ba mu doon lu bari mu takk ko soog a toog ci wetu bant bi tëral say wi ci ginnaawam ndax bu nekkee ci suuf du neex a yëkkati waaye bu lépp taxawee nag boo ci tegee sa bopp rek boo boo bësee say wi mu tëdd nga mën a jóg ak moom noonu la daan taxane mu def ko sayu nag ba ñëw nag sëpp ci bopp bi bëgg a xëcc mu tëdd ci bopp bi mu mel na sayu daa diis cheikh bi da ko xam ne ah dama ne ci man la sayu jëm ci sëñ bàmba bu lànkee ci man la daal dem wuti waat lu tol noonu takkaat ko ci ba mu dëgër mu dikk na ko cas nee na sayu gën a woyof lam doon yëkkati mu wut si sëriñ tubaa bi mu dikkee nag nee na daf fekk sëñ tubaa toog woolu maam Cheikh Anta mu ñëw mu ne ko ana Ibra Fall mu ne ko Ibra Fall daa wuti woon ay bant mu ne ko bu agsee na bu agsee na agsi nee na bi maam Cheikh Ibra ne cëpp rek sëñ Touba ko Ibra Fall bisimilah bi mu agsee sëñ Touba ne ko Ibra Fall de sama borom xamal na ma ne yàlla mi la bind wàcc na la am nga ngërëmam yonent bi taxoon mu bind la it am nga ngërëmam man mii nga newoon fi man di ma liggéeyal am nga sama ngërëm bant yi nga daan wut di ko indi ci kër gi it nee na bant yi nee na am nga am am nga am nga seen ngërëm dégg loolu waaye taxut mu yewe ko nee nag mu xëy nag gàdd gàddu ak ngajam dem ci àll bi nee na bu yëkkatee ngaju gi bay bëgg a dóor ci ab bant ngir mu dagg rek mu ne laa ilaha illallah jërëjëfe sëñ Bamba nee na mu teg nee na ba ngoon jot amul benn bant mu ñëw ci sëñ Tuubaa ne ah ñëw ci si maam Cheikh na ko ah Cheikh ma sa mag ji maa mu ne ko ah man de bant bu tudd yàlla képp du ma dagg ko waaye turu sëñ Bamba wi laa mënut a dagg te yëpp a tudd sëñ Bamba nee na bi mu ñëwee mu ne ko dalaa dalaa gërëma woon démb benn bant mënatoo koo dagg loolu kon ànd bu yàgg waaye nag liggéey ci pas-pas may na ko lu mel noonu pas-pas dëgg su ko borom amee fa ko yàlla joxoñ rek fa lay xool boo ñëwee Daaru Salaam da nga gis ci yéer gi yéer gu nekk ci Daaru Salaam goo xam ne fi lañ daan julee it am na teen bu ko féete woon ci loxol càmmoñ foofu armeel yi moo nekkoon daara kër maam Cheikh Rahima Fall am na dégg bu ñuy wax goora wolof yëpp di wax goora goora goora mais cosaanul goora lan la mooy Cheikh Ibra Fall àll boobu dafa bari woon ay bant. mattum jalambaanam fi nekkoon boo xam ne bant yoo xam ne buy dagg da nga bi day sedd bu Cheikh dagg bant yi nag di ko rattaxal bant yi neex gi mu neex a yët sëñ Tuubaa ak matt mi nga xam ne du saxaar Cheikh re bant yooyu la daan wax naan ah mbate góor ak or maanaam bant yi la daan jàppe ne góor ak or la moog moog moog or ñoo yam ci moom mu naan mbate góoray or loolee nag mun a wax mbate góoray or te ndox di fa taa moo tax nit ñi daan tuddi ko tudde ko góora loolu dégg woon maam Cheikh Rafal foofu la daan liggéey moom li mu jàpp ne li muy yenu di ko yët sëñ Touba moo or booy jëlee ci àll bi di yët sëñ Touba ñoo def leen nag diggam ak maam Cheikh Anta rafet rafetaay woo xam ne ba maam Cheikh wax nañ ni caatam sax nga xam ne soxna aji awa jur wax nañ ni Cheikh lañ ko tuddee woon. moom ci boppam itam moom Cheikh Rahima Fall sëñ Moudou Moustapha Fall ci loxoy maam Cheikh la ko tegoon sëñ Ablaye Fall dar mii fab tudde na doom sëñ Moudou Mamoun sëñ gaawaan bi mu nekkee njaareem Baye Cheikh Jaxate moom kon astafurla sëñ Ahmed Tasrif nee na sëñ Ahmed Tasrif nee na ñi ma dajaloon ci kër sëñ Touba di fa wut ngërëmul yàlla sëñ Moodu Maamu na ci gënoon a nekk sama xarit. nee na dafa am benn bis bi sëñ gaawaan liggéeyee këram gi nekk njaareem ñu di ko wax Paris état su dénk bi mu fi andi woon état bi dafa am ay tànk ñu ñu teg ay dénk ci kaw sogo def kër gi nga xam ne suuf day ngelaw day jaar ci suuf gi du tàng maam Cheikh Ibrahima Fall. señ gawan señ ahmad tasrif neena señ gawan da ñew ci señ touba bay genn señ touba na ma ahmadou manako mbacke mu ne ma demel gunge cheikh ta bo demee nga tok fa bu julli tisbar nga soga ñew day sanc kërëm neena ma and ak mam Cheikh ñu ne ci ci kaw karos bi neena bi ñewé bay bay jup kër kër mam Cheikh gi ñu seen Cheikh Ibrahima Fall ci penc mi neena mam maam waxé ndar ndar lay wax da ko ne kaaku mu mu ne ko kedde dañu Ibra Fall mu ne ko woko nee na ma daw ne Cheikh Ibra kaay wuyu maam Cheikh Anta nee na mu daal ne ñokket topp ci man nee na Cheikh Anta Cheikh Ibra nag kenn du doxandoog moom wala da ngay daw ndax saa yu jéego saa yoo day daw su yëkkateeb jéegoom ci mi ngi ci say tës seen i tànk. nee na li ma jaaxal mooy bi ñu agsee sëñ Ahmad Tasrif nee na bi ñu agsee maam Cheikh dafa aji tànkam rek Cheikh Ibra daal di wóof bóof fi ñu war a teg suñu tànk fii la bóof. toogandoo wut ak ñun ci kaw nee na Cheikh tegu ci jënn baat lu weesu fëggalee tànkam la teg ci ginnaaw Cheikh Ibra nee na nag man ñemeetuma tàllal samay tànk ñemewuma koo teg ci kaw Cheikh Ibra nee na sëñ Gaawaan na tàpp na ma Ahmadou teg ci nee na nga xam ne bi may teg sama tànk yi nee na sama yaram wépp dafa dee nee na waaye wóor na ma ne yaram wii ma ko teg borom noo yeetut nee na wóor na ma ne yaramu Cheikh Ibra Fall mi daa mel na lu dee nee na bi ñu agsee bi sëñ Gaawaan ne maam Cheikh Anta Cheikh Ibra ne ñokket nee na ñoo tolloo am njoolaay góor ñuñ mësaa dégg nga dugg nga seen seen seen bopp ca kaw nee na Cheikh Ibra naka mën a cëpp daal di wogganti lim solon aj aj bot loxo yi ma top ci ginaaw maam cheikhante biñu accès ci étage bi maam Cheikh Cheikh Rafal daal di yéeg daal di xool daal di ah cheikhante Anta mu ne ko Mbàkke mu ne ko sa kër gi neex naa jaamoo yàlla de nee na baat boobu laa njëkk a dégg nee na maam Cheikh daal di jàll ci biir bàyyi Cheikh Ibra ci salle bi Cheikh Ibra daal di lal dal bi kàbbar nee na ma yéem yàlla lool di ko xool waaye tontuuma nee na mu julli ñaar rakk sëlmal waat ñaar rakk sëlmal daal di toog ab diir maam cheikhante accès bi maam Cheikh Anta accès nuyoo moom daal di ko ne Ibra Fall de xanaa yow mën ngaa de ñëw delluwaat ca mbooloo ma dama bëggoon nga léemul ma kër gi rek nee na mu dem nee na néewu maam Cheikh Anta Cheikh Ibra Fall dafay julli waxuma ko dara nee na bi julli jotee li ma yéem mooy Cheikh Ibra Fall moom dafay naafi la waaye bi nga xam ne julli jot na maam Cheikh Anta ci kaw lal bi la toog ñu andil ko ab tabourier andi suufus berber soo xam ne nee na day melaxat tegal ko ci palaat maam Cheikh Anta tiim ci palaat bi ba jekk mbooloo mi ne ci ginnaaw mu kaabar ci lal bi jiite nee nag may may xool bi mu jullee ba sëlmal nee na daal di man a Ahmadu mën a ko Mbàkke mu ne ma yow de damay bañ sëriñ bi laaj la ndax mënoo faa sori te ngaa ñëw dellu nee na ma daal di topp ci nee bi ma ñëwee nag sëñ na ma xam naa ne loolu la ma sëñ Tuubaa doon taxoon mu ne ma demal ànd ak seex nga yendu fa nee bi ma ñëwee sëriñ bi ne ma Ahmadu naka seenu yoon ma ne ko bi ñu jógee de Seex Ibra Faal lañ njëkk jot mu ne mu ne ne ko sëñ gaawaan na ma dawal wool ma ko mu ne ma hum mais bi ma ko wooyee ba mu ñëwee mu ne ma ñu ñu ñu dugg ci karos bi mu ne ko nu Ibra Fall def nee na sëñ Tuubaa mu ne nu Ibra Fall def ma ne ko fa ñuy teggi tànk de fa la boof mu ne ma seex nu mu def ma ne seex da daa fëggalee tànkam teg ci kawam mu ne ma yow nag nee ma ne ko man de damaa gàntu woon seex na ma teg ko ci mu ko boo ko ci tegutoon xam. Mm. nee na ma teg ko yàgg mu ne ba ngeen àggee ci kër ga nag. ma ne ko bañ àggee ci kër ga day bi ñu yéegee ci étage bi kër gi ñu njëkk a jot Cheikh Rafal da koo xool wet gu ne ko ne ah Cheikh sa kër gi neex naa jaamu yàlla de mu ne ko jullit xàqan la nee na baat boobu sëñ Tuubaa ma ko wax mu ne ko Ibra Fall xàqan la. nee mu ne ko Cheikh nu mu def mu ne ko Cheikh day ba waxtu jotee suuf su rafet lañ ko andil ci la tiim maanaam li ma jaaxal de mooy julleem nga ci kaw lal ba la ko jullee mbooloo mi topp ci ginnaawam mun ne ko Cheikh dañ ko daa am Cheikh dañ koo bàddil nee na mu ne ko Cheikh dañ koo bàddil daal di ko ne toogal ma wax la ci ñaar ñooñu nee ma toog mu ne ko Ibra Fall day sama borom boole woon ak moom liggéey bi mu mel ne su ma dee jëmm mooy takk ndeer ba jëmm nag li ko war warutu takk ndeer takk ndeer nag dana toppandoo daal di ko wax ne ko xanaa jëmm de mooy mooy def dara ñu bindal ko bàkkaar waaye takk ndeer moom di su ko bindalaale bàkkaar mu ne ko déedéet mu ne ko Ibra Fall sama takk ndeer nee na daal di ko ne seex nu mu def nee na ma ne ko seex ma nettali ko ma ne ma da nga xam lu ma dolli ci moom barke lay doon waaye taw feex la judduwaale nii ma ko nii mu mel ci àdduna laa ko fekk àjjana. kon diggante maam Cheikh ak maam Cheikh Rahma Fall yàgg na yàggin woo xam ne ànd nañ ngir pas-pas ni ko sëñ bi waxee ànd nañ ngir ak bëggante. sëñ Tuubaa it boole na leen yàlla it defal ko tawfeex ju toll ne mu amee nga remul yàlla daaru salaam kon daaru salaam la ma waxoon ci njalbeen ga fi la sëñ Tuubaa njëkk a sanc ci dëkk bu moom fi la njëkk a amee jumaa ju moom jullee ci ajuma fi la njëkk a amee njaboot goo xam ne ànd nag ñoom dund ñu di góor fi la maam Cheikh Rahima Fall amee nga remul yàlla ba mu demee ci géej gi ba noppi it fii la yeneekuwaat fii la njëkk a woote màggal goo xam ne it sëñ Tuubaa fekke na ko ba noppi joxe joxe ci ndigal ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum